Samba Laobé Khouré Jëmboot Njaay dañoo rey baayam nga xàcc muy gone gu tuuti ñu indi ko làqasi ko Alburi ñu rey baayam ci ndëdd mi ci ngën a neen ndax tanoor Fatim kurango yi moo ndag néeg bi yomb ñu xare bàyyi Alburi yooyu ngën a neen ñu rey bàyyi Alburi moom it ñëw làqasi ko ci néegub géej Alburi nag li ko Lat Joor magee bariwut bobu mi ngi fekkon ci jamono yi damel birima ngone latir mu yor len ñom ñaar digante mbul ak ngiss waye sambala be nenañ dafa bëri won katan daan japp xalé yi di noggatu bi ñi doon gone rek alburi nak mom doon nit ku diggu doom waye doole ji dafa dafa dafa dafa ëppoon jëm ji am ben bis nak ñom ñaar ñu laale xex xex bu metti bi ñu xeexee am na ñu nettali nag ne magi mbul leen boole waaye man ci fi ma jëlee ginnaaw Samba Laobé doon gone yi bis mu dajeek Alboury xam naa xeeboon Alboury nag Alboury am lu mu def ak Samba daal ba gaañ ko gaañ bu métti gaañ boobu nag métti woon na Samba Laobé ba bi nga xam ni Samba Laobé falu na doon damel ci Kajoor Alboury nekkoon Kajoor. ñu xeex Samba Sadio boobu monoton Seexu moo notoon Jolof rayon buurub Jolof ba fa ne not Jolof bëggoon a sambasajo nyurai noot ci Kajoor tax ñu daje Samba Sadio ñu rey amadi Seexu 1875 da ci la Alburi nag màgg nag bi xare ba jeexee mu ne day dem jëli nguur yi bàyyi nga ca Jolof fekk boobu amadi Seexu bàyyoon na fa rakam ju ñuy wax bara bara ndaw baro yi lifon jolof arbi bim ñewé ba mu fa la tekki yonne ca bara ne leen bara neel yónnee ne neel bara na ma nuy ci mbaa mu nuy ci ko bi nga xamee alburi nak bara genn dem jolof placé nga xamni ni sàmba say musa yu wax ak xalé rek ñun ko la la yow lila alburi def bo morom alburi sa morom loolu nak nakari Samba Lawbe bi magge sa saa yu xoolee gañu gaañu boobu rek xel mi dem ci alburi tax bu jël xel la xagaan ni kadior ñu ne faal mu ne dama bëgg fekk alburi jollof la ngeen wax ñu ne ko bo xey bo fekk alburi de ñun da danañ la topp danañ mel dinañ la jégué sa daw ci ba di jégué sa sœur yi mu jël xel la xagaan ñew fekk nat Joor ne ko dama bëgg fekk alburi jollof ndax man dal damay def saay ma waxe nit rek ñu ni ma la la alburi defoon saay sama xel mi demé mu miti mo moo tax ma fekk si juuf suuf si jolof sax su ma ko reyee si suuf sama xamni xam mu duma moromam ma moroomam su ma alburi reyee ci suuf nak ma xamni ni li kajoor wax deug la la joone ko bul dem ndax yena bokku bokk ndey bëgguma ngeen xare mu ko wax naa ko ba kajoor ak bool dégg la jor téré ko téré mu të boobu sambal la bi mi ñew mi nga ànd xarem xareem ndax mi nga ànd ku ñu wax bay baarama leen koddu ngay mom faat na binta téméri fétal la andal mi nga ànd malikum ba jaariñ mi kenn mayul bawol daari seen seeni japp seen jigeen ñu ko ka ñu fal waxe ñu waxew woo ñu ko won ni téméri fétal la andal mi nga may sa biige ngone téméri fétal la andal mi nga ali babu mi ci jaayan téméri fétal la andal bi nga ak mudu ma borom susulub kaay ne makko sin ko xamul lu ca dàq téeméeri fetal la andal bi nga ànd ak mu subur déggoon koddu temeri fetal la andal ñim andalon dal bari nañ la jor ne ko nak danga may may ñetti fan mu tol lay galaj ba tikki bu jant so rek li ngay tigg gaajo garmi yep ya, setan ci la dem ci garmi par ben ben na leen yéen a ngi ànd ak sama jarbaat Samba di ànd ak fekk sama jarbaat Alboury waaye rek Kajoor na ngeen fexe ba bu sambal rey Samba Laobé Samba Laobé du mu rey Alboury ndax ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo bokk ndey. ñetti fan yi mat wari mat lak joon ko mën ngaa dem sugeer waree jëfa muy giri ngaraaf Samba Laobé bi ñëw rey fanweeri nag ñu togg yàpp wa ba yap wa ñor ñu fekk ko ci nkangu naay gu muy jei ñu ne ko demel sàmbalaw ba ci dengan yap waangi ni nopi na sàmbalaw ba di len ana bur degan koddu ñun ko musubur dëggan kodd ci wul ma nga keur li ngeer mu ngi len bu kenn ya, reete degan koddu mo may ñewul neen rek bol dañoo fande musu bur degan koddu fanan jaaji keur li ngeen fekk fa rek wet ya, nak diko mu fanan fa musuburu degan ko dofa la fanan ba yor yóbbu góor bi saqi mu fa sa mu gudd guddu ñu wax yaaram ne bo ñep gor depo mu dëñee wekko ñaari fetal jasi kulifatin xejub kapor pak ak tecc tubay fiis war ca kaw fasam way gannaa ko rek ba tispaas bi na ngur alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi fo sen chaîne bi di Xam sa Réew TV ma ngi len di nuyu di len ziarah ak fu ngeen mën nekk mu ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew ñu nekk ci kippaangoy mboor yi cosaanu Sénégal sàmm sunu mbati daara sëñ Moussa Ka ñii safoo xam sam réew TV te mu nekk ci Facebook bi ak support xam sam réew sëñ Bamba Mbeng ca Amérique di nuyu sëñ Ibra Fall nekk ca si ngooña waaye fàttewuñu sëñ Lay Njaay momit nekk ca Genova sëñ Maxtar Silla nekk ca Paris di nuyu ak ziara sëñ Abdou Aziz xalifa sëriñ Adi Touré mbokk yi dama ñëw nag wala dama dellu si ci jubbanti mboor ndax dafa am vidéo buñ ma yónnee boo xamante ni wax ji day saf na waxi mbegere lool ñi ma ko yónnee nag ni naa leen leeral loolu nag ci laa bëgg jublu waaye dama leen di bàyyi ngeen déglu vidéo bi ba noppi ma doog a ñëw ci leeral yi cinq quatre trois deux un kon mbokk yi noo déggandoo vidéo boobu nga xamante ni dañ ma ko yónnee ngir di ci wut ay leerlu vidéo bi nee naa leen xeeñ na wala saf na waxi mbegere te mooy wekkoo ñaari fetal yor paakab xawma lan ak jaas nangam ak tube yu piis loolu moom kuy déglu Mbéguéré yàgg nga ko dégg ci ay waxam euh, léegi nag euh, vidéo bi danaa ci tënk ñett walla ñeenti mbir rek ndax duma mën a topp lépp damay bañ mu gudd ngir wane ni li nekk ci vidéo bi ay njuumte la ndax dégg ngeen mu ni Alburi bi muy gone dafa xeex ak sàmbalaw bi xuree ji mbóoj ba gaañ ko loolu di njuumte ndax Alboury Seynabou magee na Samba Laobé Khourédia Mbodj fukki at ak juróom benn kon maase wuñu bay xeex ci ak ndaw loolu njuumte la Samba Laobé Khourédia Mbodj Alboury bi nga xamante ni wax nañu ni moom la xeexaloon te mu bom ko te mu ni ko woon dinaa ñëw jolof yéeg ci seen daqaar ga Alboury pend mbooyo la waaw ba ko waxee Alboury pend mbooyo ni ko xana day fekk ma faatu kon al Alburi Penda Mboyo moo jàppante woon ak dameel sàmbalaw bi xureeja mbooj waaye Alburi Seynabu mage na dameel sàmbalaw bi xureeja mbooj fukki at ak juróom benn ndax Lat Joor mi nijaay Dameel Sàmbaloo bi Xuree ji mboj atum junni ak juróom-ñett téeméer ak ñeent fukk ak ñaar la feeñ 1842 Lat Joor magee na jarbaatam boobu ñaar fukki at Lat Joor ñeenti at la magee Alburi Seynabu ndax Alburi Seynabu mu ngi gën a jamono ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn 1846 Sambalaw ba Xureja Mbooj moom 1862 la feeñ ndax wax nañu ni ba muy xare ji xareb gille booba ñaar fukki nawet ak ñeent la am maanaam ñaar fukki at ak ñeent kon loolu njuumte la nit ki mënoo koo magi fukki at ak juróom-benn ba noppi ngeen doon ay gone di xeex ñaareelu njuumte bi bi ma jàpp wala bi may indi di ko jubbanti nee na Alburi ak lajoor Joor ngi yaroo ci ëttub dameel Birima Ngóone Latiir loolu itam njuumte la Lat ak Alburi Seynabu ñi ngi yaroo ci ëttub maami Lat Joor mi jur Ngoone Latiir muy dameel may sa tend joor dameel may sa tend joor mu jur yaay Lat Joor foofu la Lat Joor yaroo mook Alburi Seynabu kon bi nga xamante ni bii moo ci gën a kiimaane ci wax ji te loolu lu moom mi rek moom jëmm ji wax ci vidéo bi xaw ma kan la mooy sàmbalaw ba xuree jëmbooj ba muy dem gille wala ba muy waaj dem gille dafa ñëw tàggu nijaayam Lat Joor dégg ngeen ci vidéo bi mu ni bi mu tàggoo Lat Joor Lat da ko ni yéen ñaar sama ñaari jarbaat ngeen Alburi Seyni bu dee nu muy doone jarbaatu dana doy waar ndax Seyni bu Jóob mi nga xamante ni mooy yaayam maami lajor jor ay doomi bàyyi lañu ndax Seydi bu Jóob Amadou Yàlla mooy baay mooy baayam amadu Yàlla saaxe ër Fatma di maamaati Lat Joor mooy baayam kon Médoune Soxna Ñaan mii nga xam moo jur bàyyi Lat Joor mook bu Jóob ndey Alburi ay doomi bàyyi lañu kon Seynabou Diop bi nga xamante ni bii mooy yaay Alboury bàjjan la ci saaxewar soxna mbay mi bàyyu la joor kon nu buur ba jolof alburi seyri bu di doone jarbaatub Lat Joor loolu dana ma jaaxal ndax yaay alburi muy seeni bu jóob bàjjan la ci saa xewar soxna mbay mi bàyyib Lat ndax moom mi duñ soxna ñaan mii bàyyib saa xewar seeni bàyyi bokk bàyyi kon euh, loolu njuumte la waaye bi nga xamante ni bii dégg naa ñu bari di ko wax ba ci communicateur traditionnel yi mooy tàggu goo xamante ni Samba tàggu na ko nijaayam Lat Joor ba muy xeexi ak Alburi bu xareb gille loolu dafa munta nekk te dafa nekkut nga xam ngeen ni Lat Joor bi ñu ko teggee ci ndameelu kajoor gi ci weeru décembre atum junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci weeru décembre wa dafa fippu jarbaatam bii di euh, sàmbalaw ba xuré jëmbooj moom itam fippu ndax sàmba yaaye ma ñu fal ànduñu ca fippu nañu ba ni nga xamante ni bii tubaab bi wut nañu ab détachement ay xare ñu dem toppi Samba Lawbe ba ni Samba Lawbe wéere ay ngannaayam dem ba war sàll dem France dem euh, Ndar waxtaan ak tubaab yi maanaam négocier bañ ñu ko léegi kon na ñëw du ñu ko jàpp Samba Lawbe Xuree Jëmbooj dem joxe ay ngannaayam ñu ne ko nag danañu la bàyyi nga dem Kajoor waaye bul yëngal dara ab citoyen simple ngay doon boo demee daal ab jàmbur ngay doon ca Kajoor waaye njàmboor ga ak fit wa tax na waa Kajoor sàkku ci tubaab yi mu wuutu Samba Yaaya mi nga xamante ni mooy doomi Debbu Sukka Samba Yaaya mi nga xamante ni mooy baayu Jéeri Joor Ndeela ñu folli Samba Yaaya fal Samba Lawbe Xuree Jëmbooj Samba Law ba Xuree Jëmbooj mu tóorloonte ak tuwaab yi maanaam mu signé ab traité boo xamante ni soo demee ca traité ba ñeenteelu poñ ba ma ngay wax tubaab yi ni leen sama nijaay Lat Joor dootu dugg Kajoor ndax tubaab yi bi ñu euh, follee Lat Joor mu sonnal leen signé nañu ak waa Jolof ngir Lat Joor ba ñetti faa dugg ñu signé ak Teeñ Ceyaasin Joor Galo Gànna ci weeru mars 1883 ngir ni Lat Joor mu dootul dugg Bawol waaye jarbaatam bii ko woote itam traité bi ñu tërloonte signe kook ak ñoom da nga fekk ca ñeenteelu poñ ba mooy sama nijaay Lat Joor tere naa ko dootuma ko may mu duggu Kajoor kon dina ma jaaxal lool koo xamante ni bii nanguwul Lat Joor dugg Kajoor bi mu falo te ci weeru juin 1886 la dem songi Buurba Jolof Alburi Seynabu muy xareb gille kon njuumte lu mag a mag mag la ci ni Samba Laobé Khoureyja Mbodj ba muy dem di xari ji gille dafa tàggu nijaayam Lat yor ndax booba seqatuñu ko woon li ñuy wax ni tubaab yi diviser pour régner fexe ne ba tàqale leen te gis nga Samba Laobé mi ñu fal Samba Laobé Khoureyja Mbodj dem na xeex yi gille tubaab yi di ko woon bul xeex mu xeex ba xeex ba jàllee ñu ni ko yaa tooñ alamaan ko teg ko ay daan ni ko danga koy fay loolu taxoon na mu fipp moom it teg eh, tubaab yi nga xamante ni ñoo doon yaxantu muy commerçant yi tubaab yi moom it mu ni leen nag di fay galak ba dem tiwaawoon ba la xew xew fa ba mu ñàkk fa bakkanam kon loolu laa doon indi ci ak leeral ci njuumte yi nga xamante ni ëpp na loolu sax waaye daal sambalaw ba xuree jëmbooj ba muy xeexi gille dafa tàggu nijaayam Lat Joor loolu njuumte lu rëy rëy rëy ndax booba seqatuñu ko